bu doon cerey taalaale le daanaka équipe bii di équipe bu Sénégal Sadio Mané daanaka mootaay taay cere ja daal di defar ñeexum baase moo xam ni moo fatt taraj la tegal ko gars yi gars yi siim gonek sénégalais gi ñancoo international sama waa ji tëj na kër gi ci match boo xam ni Sénégal ak Bénin ñoo ko doon football léegi match ba jeex na Sénégal moo gagné benn bal ci dara ci match boo xam ni bu mitti la am na ay coppite yoo xam ni gis nañ ko ca bopp classement ba waaye laneen xam ne cuqur na mbooj dana dikk léegi ci xibaar yu wér te ci kaddu gi Alaaji ma sant leen gërëm leen ànd beeg ñun am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam ci information yu wér te wóor yi nga xam ni ñi ngi ko fi taataane taataane information mooy li wóor abonnement bi bu leen ci des gannaaw benn yoon yow mi nga xam ni yaay door a tàbbi ci seen bi match bi nag bi ñu koy bëgg a commencé daanaka ba ma gis bopp classement bi ma gis ni kii di Aliou Cissé daanaka am na ay coppite yu ndaw yu mu def ci li nga xam ni mooy boobee classement ndax daanaka dañoo gis ñancoo international Sadio Mané ak Boulaye Dia ak ki nga xam ni moo nekk Habib Diallo ñoom la jël tëmbal leen ca kaw daanaka enchaîné wu loolu am jël euh, kii nii di Habib Diarra nag première fois ñu gis mu dugal ko ci match boobee nga xam ne ci première sélection daanaka loolee euh, jaadu na mu bokk ko Nampalys Mendy Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne euh, daanaka moom it yees na muy ñëwaat ginnaaw Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne Sénégal yebbi woon na ko waaye Sadio Mané ñancoo international daanaka bi ñu footballee lu toll ci juróom fukki minit ak juróom-ñett la tasaare gaay yi dugal bit boo xam ne ci ab pelanti la di fàttali ne Sadio Mané pelanti moom fi toll nii ci équipe nationale bu Sénégal benn footballkat mënu ko ci ndax loolee da ciy doxal bu baax a baax loolee nag daanaka mën a am indice euh, ci équipe nationale bu Sénégal bi ci li nga xam ne mooy bopp classement bi ci laanaka euh, fële ca FIFA ndax daanaka bu ñu xoolee ba nu jógee ci Coupe d'Afrique bi ñaari match seen jot a am dañu koo dabban ñi carte gi leer bu baax a baax deux sur deux mu nekk loo xam ne lu am solo la kon daanaka Sénégal mi ngi waajaat yeneen match yoo xam ne ci côté juin yooyu daanaka bu ñëwee danañ leen ci indilaatal lu leer waaye Nampalys Mendy tamit ak dellusiwaatam gars yi ci commentaire yi nu ngeen ko gisee doy na leen wala doyu leen Idrissa Gana Gueye tamit daanaka màgget la goo xam ne fi mu toll nii bu leen fàtte jëf ju rafet di fi daan waaye daanaka taxawaay bi mu am tamit ci match bi am na solo dugg si kii di a Diouf tamit daanaka coppatiwul lu bari ci match bi waaye nag gis nañ ni am na taxawaay boo xam ni buñ ko gënee may temps moom mii dina doxal bu baax a baax ki nga xam ni mooy Habib jara tamit daanaka di bu njëkkam moom it coppati na bu baax a baax fekk booba Sénégal Sénégal mooy nuggutu équipe bii di waaye nag France daanaka fële ca réewum France nuggutu ki nga xam ne daanaka mooy équipe mi ngi daj lu mburu dajuloon ci taal ci match bi nga xam ni ñu ngi koy recevoir fële ca réewum Espagne waaye nag li ci métti ci match boobee mooy supporters yi yi nga xam ni daanaka seen football kat naan Edouard Camavinga daanaka ñàkk nañ ko ci Brésil loolee nag mi ngi am bi ñu lu toll ci ñeent fukki minute ak ñett séngam maanaam ci première mi bi daanaka la am blessé boo xam ni bu xaw a la mu génn kii nga xam ne nag mooy ab entraîneur am di kile di Didier Deschamps moo bi nga xam ne ñoo yor ci wàllu am paj moom moomee na fi mu nii daanaka dañu koy yollu ngar mu dem ca Madrid ñu xoolal ko fële yërgi yaram fële nga xam ni daanaka mooy ëpp këlëbam ndax daanaka ñii di Real Madrid ñu gën a coytu ay bagaasam gars yi yeneen information ci kanam tuuti jërë ngeen jëf